ndiki nguuri gambia sen spokesperson mbiɗi ibrahima ji sankare mom nak wahonnane kiiri soldar buñ hamesi omar sadio mom dañ ko génne sa soldari niki mom nak nekkut gambian li nak asi won wax bu bari be waral nak ñu bari daal di tuumal kiiri masane e kinte nak mom dafa nekk di asi li di xeex si kaw joolaa yi waaye nak kii di nga xam ne député spokesperson bu gambia am forces mom nak wax na ne kii di nga xam nak ex corporal sadio lu ko waral ñu génnee ko foofu ne moo di ne dafa asi kayit yu nga xam ne nag kayit yi tapale la moom nag wax na ne kii nii di ah, Omar Sadio turam bu digga sax Seeku Sadio la bu nga xam ne nag moom daf ko wécci sax def ko Seeku Sané te nag loolu la daal di jël mu dugga fële na di Kabakel Marakisa ak Daasilaame Upper Basic wax na ne nag moom loolu la jël mu daal di am lii di nga xam ne moo di waas certificate am bi te nag mu daal di jël lii di nga xam ne nag moo di junior secondary school living certificate yi Omar Sadio wax nañ nag kooku nag cousinam la moom nag loolu la daal di jël pour mu mun a bokk sa soldat yi bokk na si intake 27A te nag lii di nga xam ne moo di euh, ñoom seen euh, investigation bi daal dina wane sax ne euh, kii di nga xam ne nag moo di Omar Sadio tur bu mu daal di jël nag tur boobu noonu bokkut ak mm, dafa daal di yàq lii di nga xam ne moo di sartam soldat yi loolu nag waral na ñu daal di jël lii di nga xam ne nag moo di investigation ñu daal di ko def sa mbiram te investigation yi noonu wane na ne kii di nga xam ne moo di Sadio kayit yu di jël nag kayiti tappale la te nag kayit la mu nga xam ne du boosam kayiti jàmbur la te yu la nekk di daal di ko loolu loolu nak yahna trop sarta yi lii di nga xam ne nag moo yi waral ñu daal di ko fa génnee waaye hamne lii di nga xam ne nag ne wax na ne lii di nga xam modi moo forces def nañ di nga investigation ak gestu sa mbir mi ak ñoom nak ak SIS waaye nag wone wuñ amuñ benn seede buy firindeel ne kii di nga xam ne nag Omar Sadio moom naka doomi Salifou Sadio la Forage TV News Mamadou Koli News